dañ leen di fay dañ leen alimenté Farba Senghor ak Pape Samb moo tax ñoom il faut ñu contrôler que ñun du ñu génn tali du ñu wax dara wala du ñu wax ndax wala di raay ki fi ne man du ma raay élection yi bulletin cinq euh, cinq bulletins yi man dama def déclaration ne cinq bulletins yi baaxul c'est un recul démocratique est-ce que comprendre nga man awma loo xam ni en matière de secrétaire général d'un parti politique damay nekk fii di neexal Macky Sall wala keneen ak keneen bés man taw gis Macky Sall li mu def baax na dama naan baax na man la lay différencier ak ñun man j'ai je fais une opposition républicaine mais quand à nag di saga ablay Wade jël antenne télé diko tam dem wala diko saga saga Karim dem ba man Farba tok na ñu wax ci ci ci vivian Wade lo xamni man dama ne kii dootuma and ak mom waaw ba ci nak am am mu Ablaye Wade moom Farba Senghor da ci wax wax yo xamni man. wax yo xamni ne loolu jarul wax sëñ bi lo duñ ci tollé dañ ci wax tay jii ki mi lay wax ni da leen di dimbali. kooku sax woo na leen ne leen. sant ma laa exactement bi moom moo leen jox xaalis. nekk. dama ne bi. leen di jàppale ñoom dañ leen wax sax yéen bu leen saaga Ablaye Wade mais ñoom pourquoi ñu bëgg saaga mais man ñooñu jox ñu ma man ñooñu duñ ma sax gis ba may jox. ci loolu ndax mën nañu wax ne Abdoulaye Abdoulaye Mamadou Guissé Euh, dafa bokk ci ñi gëm ne am na parti yu dem ci élection yi état moo leen boot moo leen moo leen kii ci suuf. mais mais man euh, xam nga damay respecté candidature ku ne xam nga man tey jii ku nekk mbooloo wàdd am na ñu naan mbooloo wàdd euh, caution état ba leen joxal mais man góor na loolu parce que man tey sama xaalis dem na ci man j'ai donné mes cinq millions pour caution bi bokk ci caution bi suñ choix bu joxe na ay millions pour bokk ci léegi tey campagne nii on a fait les t-shirts on a fait des des des des caravanes te ak nos propres moyens te loolu dépasse nañ ci ay million man je vous man parti laa yore man am naa 39 conseils élection locale yi passé Pikine Nord j'ai deux conseils municipaux biir Pikine Nord département de Pikine j'ai cinq conseils municipaux léegi dama lay laaj man est que man na ñoom Farba ñoo yem.

c'est politique ci Abdoulaye Wade je le dénonce su disiez gisee que politique c'est Karim je le dénonce mais gisuma lu politique. pourtant je ne suis pas avec actuellement je ne suis pas avec Wad, je ne suis pas avec Karim je ne suis pas encore ni avec Macky je suis là pour le peuple de manière que opposé di xool idée. je ne suis pas ni encore avec Macky cela sous-entend que un jour ou l'autre. non je ne suis pas encore de je ne suis ni avec Wad, ni avec Macky mais moi, je me souhaitais qu'il y ait une entente entre le président Wade et Macky Sall Je ne pour que parachèvement œuvre boobu Ablaye Wade Macky mun ko def ndax Macky bu réussir ndamu ndamu libéraux yi la la famille libérale loolu moo tax mbooloo Wade bu bokk ci. dégg noord rek da ngay dem wuyu ji. dem ci question pour ñu jeexal ci question moo tax ñu continuer seen problème bi ak Ablaye Wade xam nga man lan man moom lan moo ma jaaxal Macky nekkoon na foofu noonu moom mu xàccu génnal boppam dem créer parti ñu bëgg a wax ni moom li mu liggéey dafay jëmmal. kiw libéral loolu fan lañ ko mën a teg ci bu bu bu. non non mais mais xaaral loolu la parce que loolu mënul nekk. non dafa ndànk mais nag li ngay xam nga. non dangereux mais xaaral ma ñëw ma leeralal la. Mm-hmm. Euh, ñëpp xam nañ Macky nu mu génnee PDS. loolu leer na mu génn dem créer parti boppam. gé dégguñ ci benn mot libéral. alliance pour la république la parti. mais c'est un parti libéral mm-hmm. en tout cas en tout cas amul benn slogan buy firndeel na libéral la.

Abdoulaye Wade lancé une benn ligne bu appel à la reconstruction de la grande famille libérale euh, tey Abdoulaye Wade il définit Idriss comme un libéral de droite Macky Sall un libéral de gauche comprendre xam nga libéral de gauche mooy ñu tax Macky Sall xaw a jege ñoom Moustapha Niasse. xam-xam de loolu xalaat la rek. waaw dama xalaat waaw xalaat la mais dafa woote reconstruction de la grande famille libérale xam nga tax loolu ndax moom def na 27 ans wala plus di bâtir la euh, euh, l'œuvre libérale. xalaat la philosophie la vision libérale ba yàlla may ko mu falu def ay réalisation kooku tey du sañoon Sénégal day continuer cette démarche boobu mais loolu aussi am na ñoo xam ne ñu ngi koy incarné Macky Sall l'incarne bien euh, Idriss Seck l'incarne keneen ñu ngi incarne vision libérale boobu mais dama lay wax léegi man contrairement man tey jii Khalifa Sall pour man man je préfère Macky Sall que Khalifa Sall parce que man Macky Sall c'est est de la famille libérale Idrissa Seck de même chose je préfère Idrissa xam nga euh, parce que daal aussi de la famille libérale man man du ma gis du ma gis non xaaral wax la man du ma gis du bokk tarixa ba pare di dina tarixa bobu wa famille libérale la bokk man je suis je suis socioculturel mais de la famille libérale mais dama ne man li ma gis ñu bëggee Sénégal taxaw dëgër mooy kenn du ñambaan da ngay jël benn affaire nga dénk ko moom dynamique. Ablaye Wade toog na PS 40 ans lañ fi def Ablaye Wade war na fi Ablaye Wade bu fi jógee njabootam war nañ fi mun a am téeméeri at defar Sénégal ndax moom de 12 ans la def defar na Sénégal donc Macky Sall il en mesure de construire le Sénégal man xam naa loolu bon donc léegi pourquoi Farba Senghor Pape Samba bëgg diviser cette famille libérale pour ñu régner pour am lu ñu lekk lu naan parce que ñoom utum xaalis la ñu ci dugal diviser Macky Sall mais alors que ñun man lu tax mu bokk mbooloo waat man dama gis ne vision la buy defar vision buy fédéré man je ne suis pas nihiliste man dama intérêt Sénégal laay jiital man dama philosophie ma gëm mooy la famille libérale dafa war a dem dafa dem ay siècle man loolu laa gëm tey boo demee euh, en Angleterre mais libéraux yi ñoom ñooy dominé ñoo dominé Angleterre boobu léegi ñooy changé amul amul man je contre que tey Wade di di di nekk candidat. ñu dox boy y a des cadres bi PDS yoo xam ne tey mënu leen tëdd lis mais su ma gisee loolu noonu je le dis que lii ànd ma ci. d' accord mot pour mot Pape Samba Mboup moo wax ne yow sa njëlbeen nga balaa nga balaa nga leen di jox sa récépissé pour ñu mën a dem eh, eh, campagne bi laaj nga leen trente millions ñu ne loolu amuñ ko ci loolu nee nañ jox nañ la juróomi millions loolu ban firnde nga ci mën a non xam nga loolu du ma ci tontu xam nga loolu du ma ci tontu. Pape Sam moom yow ñu juróom million yi muy joxe Pape Sam moom laaj ko juróom million ñoom boo amee fan nga ko jëlee Pape Sam mu feebar na mënul faju actuellement fa Pape Sam moom mu feebar fii pour yóbbu ko France faju amu ko Farba Senghor mu ngi tabax këram bi nga xam ne si la la la la la ah, nga ne mu jëndee a une maison boo xam ne comme château tey alalu réew mi la est-ce wax ji.

jël li ñuy dajale fond de campagne yi ñu dajale jox ko moom moo ko jël aaki moo ko léegi jël télévision mais duñ ci wax parce que ñun duñ ci waxee dañuy wax les bienfaits du président Wade mais léegi dama lay laaj lan nga bëgg ma toog su yow mu tax ma ne ma jox na ma cent millions xam nga loolu. jot nga cinq millions wala gisoo sa leeragul foofu ba tey. mais mais Farba mën na def cinq millions parce que moom Farba sama yowul cinq millions yi mu joxe ñun suñu fond de campagne yi ñu yore fond de campagne luy dugg luy génn dañ koy bind man ci yooyu personnel yoo xam ne.

directeur da boo ko joxee un milliard kooku mun nga ko mun nga ko ne suba wala diw de jox nañ ko un milliard mais un milliard boobu milliard campagne la soo ko joxee tamit waa campagne la du du loo xam ne pour la mais moom moom dafa amul sax moom cinq millions yu ma jox voilà problème. <laughs> voilà moom su dee nee na dañ ma jox cinq wax kan ma jox cinq millions. Pape Samb yorul moom yorul cinq millions ñoom li ñu lekk sax amu ko dañuy daw ci ginnaaw gars yi gars yi di leen jox ay ñeent. ni imposé ni ni ni ngi leen saaga Ablaye Wade je ne ferai jamais de ma vie man du ni sa saaga Ablaye Wade man mo wax ni lii déglu ko musa saaga ci àdduna ak àllaaxira fi ma jëm dama ko musa def Ablaye Wade musuma def ministre musuma def député musuma def dara man musuma nek député Ablaye Wade musuma nek parti Ablaye Wade musuma nek ci gouvernement mais nak amna ngor bu toll ni lu ne fàng kenn du ko jeex am de mais tey jii bu ma bëggoon jël imposé ma Karim Wade je ne serai pas d'accord parce que defu fi ba lu bàyyam def. il est moins titre que moi. léegi moom sa clair division am na seen diggante. nan ngeen fas ni taxawee léegi. léegi li ñu war a taxawee mooy d'abord mandat bi ñu ko joxoon dañ koy nangu. xam nga ñun dañuy nangu mandat.